benn micro moom ñu nekk rek ñi nga ñi nga seen ginnaaw ñu ko mën xam ne am na combat yow. gis nga maa la wax rek ñaar nga xam yow baax la. waaw baax taxaw na baax man maa la wax yow. baax na ma jox laa ne maa la wax ñu jox laa ne. bii la suñu boo ñu toppee. bii laa boo waxee taw la dina gëm. man def ma ma taxaw dara yow ma demee mu. boo ci demee mu ma. fu la neexee mu duma sa affaire mu la. eh eh. waaw ñu ñaar ñu ñaar ñu ñaar ñu ñaar ndax yow yaa ngi lay naan yow ndax amoo fi amoo fi ñëw. Yera nangu ra nakare ra waaw waaw mooy si mooy si mooy si mais baal ma ñëw gis mu ne agressé agression pour lan la xanaa dañu ne mos a am fu muy daje moo am lu mu daje mais agression pour lan la. waaw di nuyu mboolem yi képp ku fi toog di nuyu sama gars yi ma àndal sama nag jagaar mbay di nuyu sama mélangeur as. per dina wax benn affaire kooku affaire ban la. parce que am na mbër yoo xamante ne. booy bëri ñoom dañ leen ñàkk loo fay. benn si kii parce que. te nit lii muy def nag benn du respect ndax suñ ko ci toppee scientifique du àll te mbëru nombre la war na taxaw wax ba taxaw wax di joxante la bu ñu paree ku may wax barki Serigne Saliou Mbacke bi ma yàlla doomu bu dul Serigne kii buñ dawal ba ci suñ diggante man ak moom ku daan jël benn lekk naa lekk lépp ba mu jeex de lekk dara foo ko teg foo ko sax man ak moom xanaa du bët soo kii xanaa doot du wax may wax parce que benn dégg wolof da koy wax da koy wax dégg wolof da nga ko wax signataire part signataire mais part dama ko wax dama ko ne l'art le plus dangereux c'est le silence booy wax da ngay wax dégg wolof benn booy wax da ngay wax boo xamante ni dafa gis ki li muy def day forcé ndox moom sax ñëw wax tey mais signataire bi bu nekk da ma toog wax la mais moom nee na bëgg raag ak yow. day soo nee na bëgg raag bañ raag. fii ñemewul. wala voyance yi ñemewul. te li may wax na ko camarade jël bu suba dama koy xeexee daal ko bàyyi ci seen nga li. wax ko. billaahi wallaahi pare naa pare naa ku teg sama tànk lu dalee ginnaaw sama seen li mu yore foofu dama daal. billaahi wallaahi tallaahi boo ci ma du ma ko delloo ginnaaw. doo agee billaahi day nax boo si mënu ñàkk barki si dinaa dañee nax yow ma dem la du ñu lay ngem ci ba ma nga loolu waaye am nga combat bu rëy a rëy su la neexee raas naka lay raas yoo xam nga loolu sax sa maango ak Alxuraan kari bu ngay ci biir ci biir bi moom ñu soxla suñu tax ku jël ginnaaw nga xam biñ laaj wala du ko bis dee doyoo ku toog waa yow booy yow booy yow man booy li jëndu ma la sax biñ laaj ko ma jëndu ma la booy yow waay eh non ñu la tàkk bare ñu la tàkk bare jël jël ah taxu jël li mu wax si dama laa wax rek kon combat bu ñaanal ko. waaw lu ngeen di wax ci promoteur bi dëgg. combat bi muy nekk ak ñi nga xamante ne bii moom mooy dëgg dara comme ni muy ñëw. waaw waaw lu muy lu muy def nii dañ koy def lu mu war a def taxaw rek ngeen ko wax day taxaw. dañ koy tere loolu. waaw lu ngeen di wax ci duo technique ak ki nga xam ne moo dëgg dara ak ki nga xam ne mooy promoteur bi di nekk production. waaw des na ñu koy gërëm. sama gan yi ngay gërëm sama garaan la muy garaan bu baax waaw di ko ñaanal ci promoteur yi ma gis tool bu bees ko di ñaanal soo ku ma naw la daf ma neex ndax xam nga xam na fula xam na fay waaw di ko ñaanal lépp lu ko ren yàlla raw bi incha allah. mais combat bi ñaari minutes lay doon yàlla sa waay. mais dëgg li moom combat bi yàgg ngeen dugal lii rek deux minutes xam nga kon combat bi yàgg. doo daw doo daw amul benn ginnaaw de amul benn ginnaaw de. yow yow yow ñaata seconde nga wax. sama sama combat yow. yow ñaata seconde. maa ngi dogoo. billahi voilà su taxawee. ñu soog a la du am. man nag ma kii. yow ñaata combat nga def. man ya combat bi la am. bii mooy sa premier combat. bii mooy sama premier combat. ah il faut bien yow ah Ouzin yow bii mooy sa premier combat. premier combat seen sa saa wane ne bii daa nekk nga nekkul ci sama mooy sama deuxième combat. te patron ko daal météo. ma waa ñu ko béy nit ñi li muy bëri météo moo koy parce que daan combat bi ñu boobu la ma bëgg a déglu daal bi. moom nag bëri na ay combat. mais peut-être ñu bëri na xam leen quoi. moo tax siiwuñu siiwuñu. yow waaw nee nañ ñu ngi bëri kenn siiwuñu. am nga nit. yow yaa ngi yor am premier combat. kii dinaa nekk nii ak loolu. nee naa gaa nekk dinaa kii. kii Mbacke Faye moo ko sës Mbacke Faye man dama ko daal ñaari dellu ci benn bés. kon fii du sa premier combat. kon kii dama xam ne man dama xam ne gars yi damaa jox damaa bëgg jox jox ma xale. ah kii du xale moom. voilà kii kii. kii kii paase. voilà. xool ko bu baax. Eh, xool ko xool ko xool ko. amul dama wax loolu. non xool ko xool ko kii paase. xool caméra yi amul dama wax loolu. dèjà amul dama wax loolu. amul dama wax loolu. dama xam man ku ma wax combat bi rek dama kii kii yàgg na seetaan de kii bu ma yàgg na ko ah ma gars loolu la may wax kon dama xam. sama gars yi man jëlu jëlu ko am na saa yoo xamante ne dañuy déplacé dañuy doon foofu rek ñu jël léegi quoi. jërëjëf mbokk yi kon euh, euh, nga yóbbu ne rek tubaarkàlla ñu jël kàddu bi rek jox ko ki nga. mit noo de bandiraaɓe fof mbiyowo mbimi e mbimaani casamance fulɓe ful fulɓe jaloore e fuuta tooro min mi ñaagin junngam mi ñaagino mbaɗe kam duwoyo combat hakkunde moustapha ndiaye kadi inchallah allah jaaɓi yakarere wona kadi bandira fof mi noddiɓe ɗo 19 inchallahu rabbi combat o min jeeyi ɗum no wayano woto dar change ha ah? ah, ha bat woto change ma sante nak formateur ɓe ma bu baax a baax jot waaw ak so borom drapeau bi borom drapeau gis nga sama sama <laughs> bu baax a baax doo la ko demee xam naa li jot ci combat bi yëpp Ousmane Ousmane Saay Ousseyni Diawara wonde euh, Thierno wonde Zil euh, Diawara Tokaram Tokaram ko parama ɗin festiyam e wonde Farba Ngomen Ousmane Saay kam fof goppani kam mbiyo mbimi mbima combat kañum jeeɗum inchallah yo wonde ke hanka men jammo kadi yooɓe ngar onon fof onon Allah jaɓi combat o enen jeeɗiɗo 19 inchallahu rabbi tokat noon vraiment woni fof tokat a woni fof farko ngo kadi o yiyat farko ngo o yiyat kadi o woni message ɗos mo jimmillas elon message woni bébé diene yatte to woni ɗo hamin jiɗum kadi vraiment kadi ko lambo sohli mo bébé diene tokat mbiɗa ñaagui allah kadi mbiɗa ñaaguima mbiɗa ñaagui kadi mo gonduɗa xale min o ko kadi maa ngi sant lépp di la gërëm gars yi ñu ngi jógoon nag ak sama ménager bu Fallou Galas Baye Mbaye waaw ñu ngi koy siyaare wér a wér waaw bàyyiwut nag mën nga fàtte nga xam ne di mooy mënul booy sin nag bu dem seeraat la neexee daan nakre daan gën waaw booy sin nag bu dem seeraat la neexee daan nakre daan jërëjëf mbokk yi e Babacar maa lay siyaare

ñu neex na trop mais bu jour ba war nañu génne suñu diggante. yow ma yow yow yow yow yow am na fi nga xam ne daa yaakaar man boo yow. teg la ñu mel ni kuy sàmm. jàkkaarloo caméra yi woote. waaw. waaw di nuyu waa Diourbel Diallo Ndiaye maa ngi koy sant di gërëm ci maanaam si la waaw di woo waa parcelle ba wér waaw di woo ñëpp rek di woo maa ngi koy woo sama Pape Bousso maa ngi koy woo di woo Moussa Sy Babacar Gueye di woo Amadou Ba waaw di woo ñëpp ñoo ñëpp maa ngi koy woo bu baax a baax moom moo suma ñëpp di woo waa Tofines Club yëpp di woo waaw yow man yaa ngi ko bëgg a def waaye mooy xam nga. waaw ñëpp daal incha allah waaw. bu fekkee toog nag. demal toog Pape Mar Pape Mar. loolu la fa koy déggoon may wax ni ko sama waay la sama xarit la ay soxla maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu sama njaay ne naayam ñoom góor ñi maa ngi di nuyu noo wàññi di nuyu wàññi waa Kër Ndeye Fall waa Ndiakhaye waa Daaru Tukku waa Tivaouane Pël ñëpp maa ngi leen di ziar di leen woo si bis bi di wax ni yow tey maa ngi leen di wax yow tàng bi nga wax ni la xaw naa yow yow parce que moom ñor na mooy bàyyi bëri business bi. dama yàgg a wax loolu kon tey jii dama koy sant ak police parce que tey naa ne bu ma toogee fii ne yéen ngeen ngeen mën a toog fii waaw dëgg la ngeen mën a toog fii mbër gis ni mbëri la chaque jour moo xam gars yi naan mbëri dañoo dof man leen yi ñooy tànn xale yu baax yi dof yi ñooy dawal si kàttan waaw doo ko baax doo moom day xayma jàpp leen foofu kon tey jii da ngeen gëm seen bopp chaque jour loolu laa koy wax boo yi mbir yi dañoo war a gëm seen bopp am na ay jamono dama nekkoon fii soppeeku suuf di bëgg saabu yéen yooyu te loolu jaar-jaar pour si gis am na lu mu bëgg teral ay waajoon la bëgg kon li ñuy def nii dama leen si encouragé di leen wax ne drapeau bi boo leen ko jëlee foo leen taxaw ko drapeau zootechnique bi ñu ne la koy def. tey xam na si man maa si sareet laa jógee sareet laa jógee bi ma nekkee sareet ba mu yàgg ma bàyyi sareet bi dem def maçon maçon bi doxul ma bàyyi maçon bi dem def garde projet garde projet bi doxul ma ne man kay maa dem def euh, dem defi di mu produit euh, waaw ma dem nekk fële garde projet di garde si di mu produit taala taala tur taala bi nga xam nga yoroon si biir si moom laa nekkoon def naa fi maçon su di jaay dama wax naa ko bari ma boobu la ñu sama unité da nga naan zone technique mooy loolu métier yi ñu daan bëri lépp ngir bëgg dara rek voilà mosuma toog ci banque ay wax kon tey jii lépp lu am da ngay koy sant yàlla gëm seen bopp respecté entreprenariat yi teg ko ci yoon parce que mbër nekk na loo xamante ne sport bu noble sport bu noble visa États-Unis foo bëgg a dem passeport da nga ko di ko xaar di kon respecté leen lamb di leen ñaanal jàmm di ne combat bi yàlla na leen ci yàlla defal jàmm ngay bëri ku ñëw rek gëm sa bopp nag tey jii dama war a daan yàlla dina leen may naan li fi am ni yëpp na parce que mbër ak signature nag ñoo ànd mbër ak loolu lañ leen fay boo leen di signature waaw mais jour làmb de bëri moo ko teg te damaa ko zoe technique dañ leen wax bu dee dara ko zoe technique du ma ko wax tey na teg si kaw wallaay parce que di nga ne noonu man drapeau benn mosuma dinaa la taxaw ba li ma di woo si ma xarit di woo monsieur le ministre euh, Abdou Karim Sall di si woo si ñu waay Awa Diouf <laughs> waaw mbokk yi rendez-vous incha allahu taala ci kàttanu sunu borom ki nga xam mooy Diaks production jël drapeau bi tuddee ko ki nga xam ne mooy Zo TV ci diggante kan mooy Moïse ak Babou Nane samedi le 19 incha ci kàttanu sunu borom ku ci am ndam nag ci réew mi la des ku ci am ndam lu néew waaye ku jàmm daf lu génn réew kon nag jàmmoo leen am leen jàmm am salaam gën a gën a mu yéen gañ jërë leen loxo oto jox leen seen loxo ak promoteur bi jox leen seen loxo ak promoteur bi baaba xoolal fii nag kii baaba aussi xool leen fële leen caméra yi. neel ko jour. jour. quatre heures. nee na may ñu tuuti bis. quatre heures. nee na quatre heures pile. quatre heures. quatre heures pile promoteur bi nee na. quatre heures. nee na quatre heures. na ko fekk ci làmb. nañ ko fekk ci làmb yi. ndax boo ko ñuy tuddee làmb muy ñëw ay six heures et demie. nee na làmb yi muy tuddee làmb ñëw six heures. quatre heures quatre heures pile. na leen fa fekk na ko premier combat fekk. gis nañu musul gis. gis musul gis am na ay spectacle yoo xam ni dañ koy ah gaañ yi. jàpp promoteur. daa am bu baax bu ñëw. eh eh eh eh vraiment. eh waaye li mooy lan quand daa am ku baax ku ñëw koo xamee ne moom la doon xaar muy maanaam. waaw ne leen bay